بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي جعل في كل زمن فترة من الرسول بحايا من أهل العلم يدعون من دل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى والصلاة والسلام على من نبئ بإقرة وأرسل بالمدسر صلوات الله وسلامه عليه بوك جلجو تدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير نيجي سنتاد الله بباخ باخ بيم ñu maye ñu dund ba di ko santaat bu baax bi mu ñu may ñu fekkee weeru koor gu tedd gi waaye dem ba toll ci fukki fan yi nga xamante ni moo nekk ci digg bi nga xamante ni lépp maafira la muy sutura ak njéggal yàlla na ko yàlla defal e, ñi ngi seen émission bi di jotaayu koor ngeen koy am ay bis bu nekk ci waxtu bi ci kàddu gi seen mbokk ko de soog ci wàllu xarale bi seen mbokku Guèye Mar keroog ba ñu yëkkati jataay bi ñu ngi doon wax jagle yi koor am tolloon ci taxaw bi ñuy taxaw di naafila di ci am tuyaabu yu rëy waaye tamit goreel bi nga xamante ni moom la yàlla di goreel jaam yi keroog foofu lañ tegoon suñu baaraam ci nawaafil yi bokk na ci jagle yi nga xamante ni moom la am moom weeru koor ba tey mooy weeru koor daa am génn guddi ju ñuy tuddee laylatul xadr loolu ci jagle yi la bokk laylatul xadr xayrun min alfi sëxri guddi la goo xamante ni moo gën junni weer loolu daa bokk ci jagle yi moo tax am na loo xamante ni bu la fekkee exploité ko yeneent bi alayhi salaatu wasalaam moom bu mu saan ñëw fukki fan yi ci mujj moom day dëkkee jàkk ja di fa jaamu borom bi ngir mën a guddi googu ñuy wax ndeysaan laylatul xadr kon bokk na ci jagle yi mooy laylatul xadr moo tax yeneent bi nee na am na guddi goo xamante ni ci weeru koor nee na képp kuñ ko xañ xañ nañ la yiw waaw nee na nag képp koo xamante ne xañ nañ la ko xañ nañ la yiw wala yuxramu xayraha illa maxrum nee na ku narul fayeku rek moom lañ koy xañ mu ne man qaama ramadaana wala man qaama leylata alqadr ndeysaan imaanan wa ixtisaaba ufira lahu ma taxaddama min zanbi képp ku taxawee guddi laytul xadr ànd ak ngëm yàlla waye rek le bopam neena dinañ ko jégal ay bakaram bokku na ci jagle yi moom ann siyaamu ramadan ila ramadan takfiru li saairi zunub wa sayiaati wa kabairiha li xawlihi sal alayhi wa sallam الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان mukaffiraatu maa baynahunna waaye isatunibatil kabair aw kama xaala sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi weer bi weeru promotion la nañ ci profito nañ ci profito bugguma tudd ñenn ñi day nuru publicité ndeysaan waaye gis nga yenn saa yi liy xew ñu ne tey promotion am na ngay yàkkamti pour dugalaat weeru koor gi nag mooy weer bi ëpp promotion yonent bi alayhi salaatu wasalaam na weeru koor ak weeru koor yàlla la ciy fekk bàkkaar yi saa iru zunub mooy diggante julli ak julli diggante ajjuma ak ajjuma waaye ci kaw lan bu fekkee bàyyi nga bàkkaar yu ndaw yi la suñu boroom waxoon ne in tajtanibu kabaira ma tunhawna nu kaffir ankum sayatikum moo tax mbokk yi ngir yàlla nañu góorgóorlu képp ku doon seeti gisaanekat ngir yàlla na ko teg ci suuf bu koor gi weesoo ngir yàlla bul demaat bàkkaar yi yu ndaw yi buñ la koy jéggal suñu borom leen da ngay bàyyi bàkkaar yu mag yi bis boo bàyyee bàkkaar yu mag yi ma bàll bàkkaar yu ndaw yi am na koo xamante ni sëñ Gueye balaa muy noppalu day dem seeti gisaanekat yenn saa yi dara dal ko wala muy place mu dem seeti gisaanekat te lii ci yéen bi alayhi salaatu sëkk nee na képp ku dem seeti gisaanekat ñu wax la gëmoo na li mu wax 40 jour boo ko jullee yàlla du ko nangu bis boo gëmee li ñu la wax weddi nga Muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi nañ bàyyiwaat xel bu baax nañ xoolaat démb xale bi fa la nekkoon ci biiru yaayam biiru yaay xool leen ni mu mel suñu borom yor ko fa yaay di dem marché di dem fu ne di voyage partout yàlla téye xale bi moom ba bis bi mu waree ñëw suñu borom indi ko keroog ba mu ko indee àdduna nga ne yàlla léegi yow doyatoonu ci bàyyil ñu ñu gérer ko suñu bopp ndeysaan ñu bàyyiwaat xel bu baax. kabaa'iru zunub yenn saa yi ngay rendi dara te la ngay rendi yàlla taxul leneen ti waxoon rek man zabaxa li xayrillaahi faqad asraka nee na képp ku rendi te la ngay rendi yàlla taxul mu ne kii de bokkale nag yàlla kon ñu bàyyi war xel jagle yi mooy yàlla nim ñuy jéggalee bàkkaar yi ci weeru koor du ko jéggale feneen fu dul weeru koor li muy goreel ci weeru koor du ko goreel fenn gis ngeen laylatul xadr ci biir la nekk beneen bi azmatu badar ci la amoon ci la yàlla teqalee diggante dëgg ak neen kon mbokk yi bii mooy bi mujj ci wàllu jagle yi xam naa bu ñuy ñëwaat dinañ ñëw ci ngëneel li nga xamante ni moo nekk ci koor mbokk ñu doon topp ci seen bii du rëy bi di seen kàddu ci émission bi di jotaayu koor agsi nañ fi ñu war a yëkkatee jotaay bi di ñaan yàlla sàmm leen sàmm ñu waaye yàlla sàmm li sàmm kër gi waye gëna a kër gi ki nekkon ci kàddu gi seen mbokk Codé Sock ci walu xarale bi seen bokk geymar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh